téere bu màgg bi di waxtaan ci melow yonent bu màgg bi sallallahu alayhi wa sallam alchamailu almuhammadiya nee na baabu ma jaa fi xaatami nubuwati li le buntab li dikk la ci xaatamu nubuwati màndarga la mu ne ci yonent bi hmm. sallallahu alayhi di tegtale hmm. tëjug yonent gi hmm. di tegtale ne yonent sallallahu alayhi moo mujj ci yàlla yónni koo déggati muy hooteeg yonent gannaaw yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi benn xel ma dikkut wala dafay nar su dee ma nga xelam mu ne nag bunt bi am na juróom-ñetti xadis bu njëkk bi xaddatanaa nettali nañu qutaybatu bnu saciidin xaddatanaa nettali nañu xaatimu bnu ismaciila an iljacdi jëlee ci jacdi bni abdirahman qaala mu ne samictu man de dégg naa assaa'ib bna yazid mm-hmm. saxaabiyu yonantu la radiallahu anhu mm-hmm. yaquulu muy wax mm-hmm. ne dahabat dahabat bii yóbbu na ma ngay wax dahabat demee bii ci man waaye yóbbu na ma la rek dahabat bii yóbbu na ma xaalati sama tante tan xaalatu mooy tante maternelle waaw tubaab dafay waxtaan te rek mm. moo xam bàjjan la moo xam mm. ku bokk ak ndey la mm-hmm. bu dee ku bokk ak baay ñu ne tànt mm-hmm. paternelle mm-hmm. bu dee ku bokk ak ndey ñu ne tànt maternelle waaye wolof ñaareel bu ne tànt mm. ki bokk ak ndey mbokkam ndey la ci jublu hmm? xaalati sama tànt bu dee ci wolof dëgg-dëgg ñu ne sama ndey ju ndaw wala sama yaay ju ndaw moo xam moom sa yaay wala magut ko mm-hmm. yëpp sama yaay ju ndaw la ñuy wax mm-hmm. zahabat bi yóbbu na ma xaalati sama yaay ju ndaw mm-hmm. ila nabi jëm ci yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama qaalat mu ne mm. yaa rasulallahi mm. ey yow mi yàlla hebal mm. sallallahu alayhi wa inna bna uxti sama jarbaat bii mooy sama doomi mbokk mu jigéen mile wajiun dafa amee méttit hmm? aji méttit lu la maanaam daal dafa feebar bi jox kok metit ba muy méttit lu sama doomu mbokk mi dafa ne ci metit nee na fa masaxa daal di raay sallallahu alayhi wa sallam yonentu daal di raay si sama bopp wa daa mu ñaanal ma bil barakati barke mu daal di raay sama bopp ñaanal ma barke mm-hmm. alaaji ibrahima ñës ne na barke du jëmm mm-hmm. waaye lum ne ñu xam ko wa tawaddaa mm-hmm. mu jàpp fa sharibtu ma naan min waduihi ngay wax ci ndoxam jàpp ma waduu bokkul ak wuduu wuduu mooy jàpp waduu nag mooy la ñuy jàppee Hmm? fa sharitu ma naan min waduihi ca ndesitu ndoxam njàppuma mm-hmm. wa qumtu mm. ma jog mm. wala wa qumtu ma taxaw mm. xalfa zahrihi ci gannaaw yonentu yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam mm-hmm. ma taxaw ci gannaawu gannaawam mm-hmm. fa nadartu ma daal di xool ilal xaatami jëm ci xaatam jëm ci tëj ga alladi ga nga xam ne bayna katafayhi bayna katifayhi nekk na ci diggante ñaari mbaggam wala diggante ñaari joggarem oo ci wax baax na fa ida huwa nooneey moom maanaam xaatamu nubuwat bi mithlu zirril xajalati mu ngi mel ni nenu bànjoole noonu benn mag daan firee am na ñuy wax zirrul xajalati di ko firee bouton Mhm. zirru dana firi biton mhm. waaye zirru fii nen lay firi mhm. zirrul xajalati mu mel ni ma mel ni nenu bànjoli dégg nga de waaw xadis ju la loolu wenn la ci mel benn la ci façon wala melo yiñ melalee xaatamu nubuwati nee na nettali nañu said ubnu yaquba saciib ibnu yaquub at-taaliqaaniyu xaddatanaa hmm. nettali nañu ayuubu hmm. ayuuba ibnu jaabirin hmm. doomi jaabir an simaak ibni xarbin jëlee ci simaak doomi xarb an jaabir ibni samurata jëlee ci seydina jaabir doomi samurata àndaale yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la radiyallahu anhu yal na yàlla gërëm ko qaala mu ne raaytu man de gis naa alxaatama tëj ga bayna katifay rasulillahi bayna katifay rasulillahi ci diggante joggare yenentu yàlla muhammad sallallahu alayhi mu mel ni dañ ne ko moo bi nga mel mu ne maa ngi ko gis xuddatan muy dogituk yàpp xamra abay aji xonq mithla baydati alxamamati xaala kawnihi mithla baydati lxamaamati mbiram nekkam di mel ni nenu pittax hmm? dégg de ndax mel nenu pittax la ci lan ci rongum roo wala melu melu pittax la ci couleur bu ci nekk jamtalu na ah ji hmm. euh, am na ñu ko euh, lompalal mm-hmm. lompañal waaye maanaamim dégg nga mm-hmm. ci euh, saxal xaatamu nubuwati ak ci meloom ak barabam mm-hmm. dikk na ci euh, saxiihu muslim nee na xaddatanaa nettali nañu abu musaab bàyyi musaab almadaniyu kay kojug madinatul munawara xaddatanaa nettali nañu yusuf bnul maajishuuna yusufa doomi maajishuun an abi jëlee ci baayam an aasim mu jëlee ci aasim bini umara kay doomi umar bini qataadata kay doomi qataadatu an jaddati mu jëlee ci maamam ju jigéen turam mooy rumaythata radiyallahu anha àndaale yonantu la sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla gërëm ko moom rumaythatu qaalat mu ne sami'tu man dee dégg naa rasulallahi yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama mu ñuy wan ba muy dégg yonentu lim dégg nim ko leeree ndax jege gim ko jege moo tax mu mu indi jumla ictiraad file ne walaw ashaaw su ma neexoon an uqabbila ba ma foon alxaatama xaatamu nubuwa gi alladi gi nga xam ne bayna katifay nekk na ci diggante ñaari joggareem ya sallallahu alayhi wa min qurbihi ngir jege gu ko jege la faaltu ma def ko su ma bëggoon a foon xaatimu nubuwati gi jege naa ko ba bu ma neexoon def ko kon jege naa yonent bi ba li ma wax bon dégg naa ko dégg naa yonent yaqulu muy wax li saad ibni muaadin sayidna eh, saadu ibnu muaad yowma maata keroog ba mu faatoo yonentu ne ihtaz yëngatu na ihtaz yëngatu na lahoo ñeel saadu arshu rahmaani arasu yàlla bi saad ibnu muaad saxaabi la woon bu màgg a màgg a màgg moo doon sangu laws al aws ak xasraj ñoo nekkoon madina lu jiitu yonentu sallallahu alayhi wa sallam bi mu dikkee soppi seen tur tuddee leen lansaar ndax aws ak xasraj ay wujj lañ defoon seen bopp doonte ay mbokk lañ xeex nañ xeex gu yàgg yonentu nag daal di dindi lawsu mhm. dindi xasraj mhm. tuddee leen lansaar ñiy dimbalee yàlla akub mhm. yonentam waaye ñiy dindale diineeg yàlla akub yonentam sallallahu alayhi wa sallam seydina saadu mii nag doon seen sang ma nga duggee ci lislaam ca madinatul munawara lu jiitu yonentu di gàddaay ci ambassadeur ba mu fa yónni yoon muy musaab ibnu umayr diggante aqaba ju njëkk ja ak aqaba ju ñaareel ja ñaari àqaba yooyu nga xam ne hmm. ca la luy xew-xewee hmm. ba ni yonentu sallallahu alayhi wa di jotee ndigalu yàlla hmm. ba gàddaay jëm Madina moom nag lislaamam lu barke la ndax banu Abdul Ashhal ci lislaamam lañ lañ jébbaloo ñoom ñëpp ndax kuñ toppaloo woon ciw nitam déggal ko lool fekkee na Badar wane fa njàmbaar fekkee Uhud wane fa njàmbaar fekkee na xandaq xandaq wane fa njàmbaar gu jéggi dayoo ba ca lañ ko jamee jam boobu gannaaw weer mm. ci la faatu mm-hmm. yonentu sallallahu alayhi wa sallam nag ne arash mm. yëngu na mm-hmm. ngir deewu saadu mm-hmm. moo tax woykat ba ne wa ma maata mm. arshullahi min mawti haalikin samina bihi laa li saadin abi amri ñun de mosuñu dégg ku dee tax arash ku arash yëngu ngir deeyam kudut saadu ibnu muaad anhu waaw mm-hmm. waxtu waa ngi dem ñu liir bi nee na xaddathana mm-hmm. nettali nañu mm-hmm. ahmadu bnu abadata ahmadu bnu abdata ahmad doomi abdatu addabiyu giram la wa aliyu bnu juhrin wa aliyu bnu juhrin wa aliyu bnu hajarin wa gayru waxidin ak kudul kenn maanaam mbooloo qaaloo ñoom ñëpp nettali nañ ma xaddathana nettali nañu Ah, nettali nañu mm-hmm. kan isa bnu yunusa mm-hmm. moo ñu nettali mm-hmm. an umara bni abdillahi jëlee ci umar ibni abdillahi mawla gufrata kay mbaay yàllaay gufratu qaala mu ne xaddathani nettali na ma ibrahimu bnu muhammadin ibrahima doomi muhammad man mu ne min waladi ali ibni abi talib mi bokk ci doomi sayidna ali ibni abi talib radiallahu anhum yal na yàlla gërëm leen ñoom ñëpp qaala mu ne kaana nekkoon na aliyun sayidna aliyu ida wasafa su mellalee rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa zakara mu daal di tudd al xadis al xadis a xadis ja bi tuuli ci guddam niñ ko jàngee ci buntu bu njëkk bi wa qaala mu ne ca lam wax bayna katifahi aji nekk la ci diggante ñaari waggi yonantu wala ñaari joggareem sallallahu alayhi wa sallam xaatamu nubuwati tëjug yonantu gi wa huwa ndax moom mm. xaatimu nabiyina mm. moo tëj yonantu yi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam hadis ji taxrijam mm. jiitu woon na mm-hmm. Mm-hmm. ñu tëjee ci bi ci des mm-hmm. ne xaddathana nettali nañu muhammadu bnu basharin xaddathana nettali nañu abu aasimin xaddathana nettali nañu azwatu bnu haabitin azwatu doomi haabit qaala mu ne xaddatani nettali nañu nettali nama albaau am nañu maas ilbaau albaau ibnu albaau ibnu ahmar al yashkuriyu albaau doomi ahmar kay kajug yashkur qaala mu ne xaddatani nettali nama abu zeydin turam mooy amru bnu axtaba al ansaari yu kay kajug lansaar qaala mu ne qaala lii mos wax na ma rasulullahi ak am lu rëy yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax na ma mm-hmm. yaa aba zeydin e eh, yow aba zeyd mm-hmm. uddunu min nii jege ma mm-hmm. fam sax nga masa wahri sama gannaaw nee na fa masaxtu ma masa wahrahu gannaaw yonentu sallallahu alayhi wa sallam fa waqaat tabbi asaabici samay baaraam alal xaatami ca tëj ga ca tampon ba alal xaatami ca la tëj ca mandargaam tëjug yonentu gi sallallahu alayhi wa sallama qultu nee na ma ko dégg nga wamal xaatamu moo luy xaatam hmm? maanaam al albaaw doomi ahmar al yashkuri nga moo laaj aba zeydin mi nga xam ne moom la yonantu waxoon ne ko masal sama gannaaw gi mu masaa gannaawam ba ay baaraamam daj xaatamu nubuwate gi hmm. nee na ma ne ko wamal xaatamu moo luy xaatam bi mu mel ni daf ko bëgg a laaj nu mu mel mu ne ko shaaraatun mm. ay karaw la mm. mujtamiaatun mm. yuy woy jege mm-hmm. yuy woy daje mm-hmm. yuy woy daje mm-hmm. xadis ju wér la fii li muy misaal mooy karaw yàlla daj mooy karaw yë wër xaatim ba waaye du xaatim bi ci boppam ndax xaatim moom du ay karaw am na ñu ne nenu mu ngi mel ni nenu bànjooli ñu ne mu ngi mel ni nenu pitax am na ñu ne dana rëy sax ba mel ni kurfëñ dégg nga wax nañ ci wax yu bëree bëri waaye li wér borom xam-xam yi nee nañu léeg-léeg dafa daa rëy léeg-léeg mu ndaw ku nekk ba nga koy gis na meloon noonu nga ko melalee sallallahu alayhi wa sallam hada wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al